شوف ما هذا قاعد نايس نايس mais waxuma loolu la bàyyi tuuti yi léegi ana mu yow lan waaw bàyyi doo muñal feeg ni sa mu kot seeg doo gaan jox la man xam naa ne xaalis ko fa bàyyi mais gaan mooy loolu alay kamu xam bawa def baa ma ñëw léegi léegi nii maa ngi coach sa doo ñëw jox amul problème ok frère. tët tët tët tët tët man damay ñibbi dëkk ba fii benn dërëm ada ko yor bàyyi fay day ñëw du la jox xaalis man sama ndiyaay dafa nay. cinquante mille nga jox ma. Ah, da ngay eh, fast food ba. Eh? jënd ndog nam. Bakary man damaa bëri bor. bor la Bakary li may bàyyi ren gisuma ci dara. Euh, naa la expliqué après ci kanam. am delloo delloo bale bi. duñ jënd ginnaaw bi euh, waaw delloo bale bi rek Bakary maa ngi euh. <laughs> ay waay waay waay. Ahí somos estudiantes, Apa yang dulu? Ya ilaha illallah. Dah pun tak. Ini anak teruk. Memboleh nak jàll. Eh, yaa ngi am jàmm baax. Eh, saako ceeb bu mag moom li muy jaar. 15 mille lay jar. ah 15 mille lay jar. Mhm. ah loolu mm. ah, seer la. seer eh, bi daal di bu mag nag. kooku 19 ah 19 mille. loolu loolu amul problème. ndax bu familiale jot naa ci. Mm. moo tax ma ne xaaral ma ñëw rek ci kii yi daal. Mm. léegi. kiyal ma saako ceeb beeg butéel diwlin bi. léegi lépp total ñaata la. lépp lépp. xaaral ma xool. 34000 la. 34000 a xaaral ma. ah eh eh xaalis bi diw mu ngi ko fàtte naa ko kër ga de. Mm. Eh, ila waaw fàtt naa kër ga de eh, léegi est-ce que doo ma boole sa boy bi mu jàppale ma bagage yi eh, ñu dem kër ga après ma jox ko xaalis muy ndil la moo kër ga moom dama ko faa fàtte rek waaw loolu wóor na ah, wóor na kay jàll ma ne waaye dëkkandoo la <laughs> ne mm-hmm. waaw man maay bàyyi fay dama def ci caaxaan ah. waaw na ma ci jàppale rek dégg nga waaw ñu kii ko ah, léegi dinaa la boole sama boy bi waaw asal kañ nga àndal ak paa bi. paa bi mu ngi dara. waaw. te ak yow xaalis na bu ko bu ko jox makaan bi yéen. waaw. bidon bi ngeen. waaw bidon bi. xam nga ñaata na woon la ko war a jox. 34 mille la la jox. 34 mille la ma jox. waaw incha allah. gis nga li ah it uh, ay waay ah uh, uh, booy tegal nii tegal nii tegal nii waaw waaw tegal nii ah booy booy booy bu yàq sama ceeb bi dafa naan ah dafa ah, ah, naan rek bu yàq sama ceeb bi te mënul ne xam naa kii dafay geste rek xaaral waay waay waay waay waay dëgg la waay waay dëgg la waay waay bi amul xaalis waay waay dara néew bi non waay waay waay man dee naa waay waay daaw dara naa de booy dafa naan maa ngi teew ndax sama xaalis dañ koo sàcc dafa naan dégg nga sa xaalis ci laa nekk dafa naan. papa ba man damaa yaakaar fu muy liggéey. lii moom nag bàyyi jën ñoo nekk ak bafet. comme bu sàcc sama xaalis waaye biñ lekk da nga xam. ah ok di taa doon nii sa àll liggéey. <laughs> booy euh, damaa am dama naqar. booy dañoo sàcc sama xaalis. léegi après man lu sama ah, ok léegi damaa bëgg nga bàyyi saako ceeb bi après dinaa la jëndi problème bi après ma ñëw ma fay ko ak diwlin bi dinaa ko fay ko. car man sama man sama grand bi waxuma loolu de man dama de man ba ma joxul naa indiwaat bagage booy man booy man ñaari naqar du ma ko de man du ma boole ñaari naqar de dégg nga ma la boy boy bàyyi saako ceeb bi nga naan ma yóbbu diw ma laa ñuy gës kii bi ceeb ah boy boy boy eh, ma boy bàyyi saako ceeb man waxuñu ma loolu bàyyi diwlin baa dama dem wala may déglu mu ah, ah, fay diw la ngay dem de euh, moo yey ceeb nga xam xaalis génnoo ci baax la génn. man mi bourse familiale bi ma joxoon sama enveloppe boobu noonu. booy booy xoolal baa jën. billaahi bugguma lii de. yow Bakary génnewu ma leen. <laughs> billaahi génnewu ma leen. Euh, Faye waaw. Euh, yow da ngay jéem a teg sa borom boutique yi mafia riche lañ jàngee. loolu euh, leen teg biir. baa jën baa jën sàkkal pexe xaalis bi. boobu ba léegi nag maa ngi muñ ci kër gi. Hmm. li may muñ nag dana jeex. Hmm. sonn naa de. barke Rasulullah te suma meree du baax de. <laughs> billaahi suma meree du baax. wax naa la ko nag. dëgg sama xaalis bi tey. yow baax di ngeen ko génn ci nii mbaa ci naaw. billahi tey xam nga naa waxoon fii ah, keroog ñu ne kenn du ndaw kenn du ndaw. jàpp jàpp euh, euh, booy. booy saako ceeb bi day dem. waaw ceeb atulaa ngay dem. ceeb bu mbay. waaw ah, kay góor. booy jox ko sa. <laughs> yow. man damaa fi dugal ceeb. maa ko bind. koñ bi yëpp ay góor jigéen ñoo fi nekk. ay ceeb bilu bilu. au revoir ceeb au revoir. à la prochaine. fay. nek ci dexin gogu rek sax yalla ak sa jarbat mom ñeneen ci dexin gi rek eh koku Modou eh, ay way way way way way Modou Fall de borom Argentine ah kontaan na ci yow de kontaan na ci yow de ah dama ne fini ne man doo sama korte mom tabarkala tabarkala tabarkala man bàyyi jën waxuma dara kontaan na de ha ah, borom Argentine borom jurbe ok ok ok ñu def non noonu jërëjëf Modou way ah waaw ci ama gënal ñi de sama korte neexna ana bara man ay sama koor moom neex na salaamaaleykum salam salaam eh, bay wa fay jeun jeun waaw ah, ah tay lo wax baxna na tok jeun oh. waaw lu ray yaram ni nii àdduna bi yepp tuk àdduna bu tukki ci koor gi ñu jëm ci korite wallaahi ah waxuma leneen waaye lo dal ah mo may toog nii mais deenaa bu yàgg ah si fi keroog yi dawlin jàg ceeb ba delloo moom kay moom ah lu nguur sum daa ñëw rek wombi la jën jën hmm. nit boo leen dëkkee nekku leen ay noon yaa hmm. ngi dégg hmm. sama xaalis bu réeree sa xaalis la ah ah man damay merde. ah ah mun naa laa métti loolu de waaye duñ bokk sama xaalis réerul moom man moom ñu may defal lu baax may defal lu baax yow kay mu ñor rek. Andiya. ah Bakary. Baye Diène. <laughs> jël baat toogal toogal toogal. bàyyi fa lan la. toogal. bàyyi fa lan la toogal. Ah, ku dee. xaalis moo réer sama fukki dina lañ fekk. ma jël dese xaalis bu réer boobu. kii maa ne. yow foo nekkoon Bakary. waaye fële laa doon Colobane jëndoon ay t-shirt yooyu noonu. mu ne. tësi laa moom jënd. baal ma t lan. ah. Euh, euh, Bakary. yow foo jëlee xaalis. waaw yow dama koo for. Bakary foo jëlee xaalis. yaa dama koo for. ah, ah Bakary loolu dañ ciy waxtaan waay. waxtaan la saf sàcc ngi saf sàcc ngi yëre rafet na loolu doon doon waaye rafet na waaye ab sàcc saf sàcc ngi. sàcc la ni mu xamee lu baax. da ngeen a soxor bu góor kuy sañse. Bakary Bakary. yaa lan la. almal lii moom la. waaw yaa ngi tooñ déglul rek. waaw déglul rek waaw jox ma sama yër. Eh, Bakary xool damay xoolal. waaye dama koo eh, for. Eh, damay tiim lu ma bëgg damay wax de. Ah, xoolal koor gee ma teree wax de damay wax de. looy wax de Bakary Bakary euh, sama bourse familiale fukki junne yi ñu ma jox Bakary teg nga ci bët Bakary fii la la fekk Bakary nga mën koo jël dem di ko jënd ji yére ah, yow looloo réer yow fii ñu jënd ginaar nga bañ xaw ma sa xaalis boobu teg mu réer nga jiiñ ma ko Bakary man fii laa dugg ci bitig bi commandé sama ceeb ak jëlum bu bari ñëw fii xool sama sa sama fukki junne gisuma ko Bakary laa la gëj gis nga ñëw indi sa yére yi boo demee fukki junne yëpp moom nga ko jëndee Bakary mbaa xam nga lenn lii dama kaa for yére yëpp laay nday sol looy sol. Ndiaye yaa ngi may saaga de. ah mbete njëgën naay. ah jox ma sama yére. ah ah ah mo mo mo. xaaral ma may ma may leen ma. naka la ma ne. yaa ngi dóor yaa ngi dóor. xanaa dag dag maa xamul. man chaque di jaay di jaay. sàcc amul njëriñ la moom dañ la ciy dóor maa ngi yëm pëlis thank you